ñëw fii ci kër sëñ Abdou Lahad Diouf Abdou Lahad nag ku ko xam xam ko ci jàng xasida moom nag ñu duppee ko sëriñ Abdou Lahad tey nag mu doon jëmmal bis boobu ci këram gi ñëwoon nag seesi ko ngir waxtaan ak moom ci sëriñ Abdou Lahad Abdou Lahad Diouf ñu ngi lay nuyu. jërëjëf ñi ngi lay delloo nuyo bu baax di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbooleem njabootu sëñ Abdou Lahad gépp di ko tàmbalee ci sëriñ Sidi di ko ñaanal mu yàgg fi lool ak mbooleem njaboot sëñ Abdou Lahad gépp di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi te may ko ak wér di nuyu mbooleem turandooy sëñ Abdou Lahad yëpp fu ñu mën a nekk euh, tey nag ñu ñëwoon ngir laaj la yow lan nga ñu mën wax ci sëriñ Abdou Lahad waaw kay jërëjëf soxna si xam naa ne sëñ Abdou Lahad moom nekk na koo xamante ne bii wax ci moom dana xaw a jafe waaye nag dana yomb te dana neex dégg ndax sëñ Abdou ci misaal daanaka kii fi nekkal sëñ Tuubaa muy sëñ Muntaxa lim ci wax doy na sëkk wax moom nee na ni mu ko mën a tënkee ni mu ko mën a misaalee buñ àggee ëllëg ci bis penc ba sëñ Abdoulaye du yees kenn loolu nag dañ ko war a jàngat bu baax la lan moo waral loolu li waral loolu mooy sëñ Abdoulaye ginnaaw bi ko yàlla boole mu bokk ci njabootu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa di waajuram dafa am ay tawféex yoo xam ne yàlla. ay jagley boppam la yu ko yàlla beral mu jag mu jagoo ko mooy sëñ Abdou Lahad yàlla daf koo ber ci tur wi tur wi mu njëkk am rek mu njëkk beru ndax boo xoolee boo jàngi suratul Ixlaas moo ne qul huwallaahu ahad ahad jooju tur yàlla la woo xam ne mu ngi firi kenn kenn kooku nag yàlla daf koo kennal ci lépp mbiram yëpp da cee wéet sëñ Abdou ak njàmbaaram kenn la ci aw fitam jomam pësséefam fullaam ak dëggoom ngorom ak tabeem ak xéram ak yaatoom ak bëggam sëñ Tuubaa kenn xamul fu fu fu mu fu mu tàmbalee fu mu yem sëñ Abdul Ahad boo xoolee jëmm ji yàlla daf koo defaloon ba ku ko xool rek da ko bëgg da ko wekk waaye boo ko miinee wala nga xam ko dootoo bëgg a xam kenn ndax baax ak xir ak yaatu ak xol bu rafet bu yéene ñëpp jàmm sëñ Abdoulaye nan la meloon ak ndaw ñi. sëñ moo defar ndaw ñi soxna si kenn koo xamante ne bi ne yàlla may na la kawar gu ñuul rek li tàmbalee ci 50 ans jëm suuf mën naa ne ñëpp suñu Abdoulaye moo leen dimbali ndax moo ñëw jàngal nit ñi fulla jàngal leen dignité jàngal leen lan moo mooy sëñ Tuubaa jàngal leen lan mooy lislaam jàngal leen lan mooy muridisme tegaat ñëpp ci yoon wan ñëpp yoon wi. ba noppi jiitu ci yoon wa ànd ak ndaw ñi ànd ak mag ñi ci gàttal daal sëñ Abdou Lahad moom buñ doon wax fii ba suba kenn doo gis kenn ku mën a wax loo xamante ne bii ni maanaa jege na jege na asakay lim lim bëgg a wax ci sëñ ñu gis ne tey nag da doon jëmmal bés bi ci kër gi noo ko doon jëmmalee. waaw man de moom xam nga man maa ngi sant waajur yi di leen ñaanal di sant itam sunu wasila Serigne Thierno Diop di ko ñaanal wér ak gudd fan. waaye yàlla dafa def sëñ laxaat Lahad nag moom man bu ma koy jëmmal naka jekk at yi yëpp maa ko daan jëmmal ci buntu këram dama daan yendu fii di ko di ko màggal di bernde jàng alxuraan jàng xasida bernde bu ngoonee ñu dem fanaan ci buntu këram fanaani faa yëkkati xasida yi ren nag yàlla dugalut loolu ndax ndigal li ak jamono bi ni mu demee waaye ba nu ba nu xëyee ba léegi ñu ngi jàng alxuraan jàng nañ fi ay limi xasida ak limi salaatu ala nabi def nañ fi ay bernde macha allah boobu ba léegi yenn yenn gan ñaa ngi ñëw ñuy saafu ante di màggal bis di ko dundal. Euh, tey nag ñu gis ne yow daan nga jàng buntu ko Sëriñ Abdou Lahad tey nag nooy def. فزت بيسار في الحسنات سيدات لمحسنات مريم فوقت مقينات عند الذي لم يدرك كن فيكون لك قد خير رسول للانتي خير وبك فسستي قد ولم يكن بمشركي لم يخفى عند المؤمنين كونك حي يحب المسعينين يا أما خير محسنين معصومات من شراكي kon xanaa am na solo gis nañ ne yëkkati nga fi xas day suñ tuubaay mu am solo lool kon nag xam naa dañuy ñëw tàggatoo rek nga wax ñu sa kàddu bu mujj rek euh, xasida yi bi nga xam ne moom nga jàng léegi lan moo tax nga jagleel ko sëñ Abdoulaye waaw jërëjëf xasida gi xam naa dafa xajul sax ci ci jataay bi moo tax jànguñu ko ba mu jeex lañ cee barkeelu ay bayit rek waaye xasida la goo xam ne sëñ tubaab moo ko taalif jagleel ko soxna Mariama yaay Sey dina Isa wax nañ ne bi sëñ Abdou Lahad ganee àdduna ca njaareem sëñ tubaab moo wax mag ña fa newoon ne leen nañ yëkkati xasida ak fosti gii daat ni nañ ko tuddee Abdul Ahad daat ni tur wi ku ko man ku ne suñ borom jéggal la daat ni itam euh, fekkul ci àdduna ku ko gën te ku ko gën dootu ko fekk ci àdduna daal ne na ngeen ma ko ñaanal bu baax ndax am naa ci moom yaakaar kon ci gàttal xasida gi ndigalul sëñ Tuubaa la woon ci bi bisu bis ni ki tey bi sëñ bi gënee àdduna Euh, sëñ bi moo digle woon ne nañu yëkkati xasida gi xataayu jataay bi moo tax ma barkeelu ci ay bayit rek jërë ngeen jëf. <laughs> macha allah am na solo kon nag xam naa rek ñu ñëw tàggatoo ba beneen yoon incha allah. jërëjëf yàlla nañu ko màggal at yu baree baree bari te yàlla jeexal jafe-jafe yi ci àdduna bi yokk xéewal yi te yéen itam yéen waa euh, site bi 24 actu yàlla yokk leen bu baax a baax a baax ba fu ñuy dégg rek site yi ñu dégg leen fu ko raw ci barke Sëñ Abdou Lahad da ngeen jëf gis ngeen ko nag tey ñu ñëwoon ko sëñ Abdou Lahad Diouf mu waxtaan ak ñun waxtaan bu am solo euh, tey nag kontaan nañ trop ci màggal gi nga xamante ne nii mooy màggalu sëriñ Abdou ñu ñëwoon ci Abdou Lahad mi nga xamante ne nii dañ ko duppee sëriñ Abdou Lahad mu waxtaan ak ñun ci waxtaan bu am solo kon nag xam naa ba beneen yoon incha allah rabbi